macha allah saa soo ko déggee rek xamal ne Modou Bale tàmbali na taalibe Serigne siidi Mbacke moom Serigne Saliou moom ma Massamba dëkk ca Touba sanc Daaru Salaam di leen bëgg bu baax a baax di bëggee waa Ndokk ak waa Daar Rahman Euh, mbëbërin ñu ngi leen di bëgg bu baax a baax ba taw bàyyi bàyyiwun kenn fu waaye mën a nekk dinu bàyyi xel ñu ngi leen di bëgg lu bëree bëgg bëree bëri ah, di bëggee waa Njaayeen Mbàkke di leen kontaane waa Héliport yéen ñëpp ñu ngi leen di bëgg bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ak taw feex ñu daal di jox suñu invité euh, King Tiro dëkk foofa ca Jurbel euh, moom lañ fi invité tey ci émission Yoor Yooru Ndaanaan yi ñu war a def émission bu am solo King maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar ooy Modou maa lay fay bu baax maa lay sant di la gërëm maa ngi sant mbooleem ku ma fekk Touba Mbacke mhm. fii ci Mbacke maa lay bégge lu bari di la sant di la gërëm mhm. aussi fàttewuma fu ma jóge muy Jurbel mhm. di sant mbooleem ku ma fa bàyyi ak mbooleem ku ma fekk fii maa lay bégge bu baax aussi di bégge sama manager maa ngi koy bégge lu bari ak Time King Tero yëpp maa ngi leen di ziar macha allah nuyoo bi matala ne am na solo King Tirohan dëkk foofa ca Jurbel di ko bëggee bu baax a baax muy doomi Bawal euh, di ko bëggee di ko kontaane waaye ku lu koo xamante ne nii rek euh, da nga koy bëggee foofa ca Jurbel rawatina Mbàkke wala mm. Tuubaa rek. Euh, ñi ngi koy kontaane bu baax a baax a baax a baax waaye ku lu koo xamante ne nii da ngay bëggee émission yoor euh, yooru ndaanaan yi di am ci rajo Baol Média FM 88.5 ñu ngi leen di kontaane lu bare bëri euh, di nuyu waa caali sant yàlla di leen bëggee Abdou Diagne ak ki nga xamante ne nii euh, mooy Tafa Faye maa ngi alo bëggee lu bëri salaamaaleykum allo allo oui allo allo allo waaw sëñ Modou Faye Fetto maa ngi lay siyaar bu baax. suñu saarloo Baye Fall. borom Casamance. waaw maa ngi lay siyaar bu baax. taalibe Serigne Mourtala Mbacke moom Serigne Abdourahmane dëgg la. yaa ngi ci rajo bi. waaw gis nga yaa ngi en direct de Saara. waaw maa ngi siyaare sa waa sa waa rajo boobu noonu. allo. waaw allo waaw Saara ñu ngi lay dégg bu baax Saara. ma maa ngi siyaare waa si maa ngi siyaare waa Touba Mbacke yëpp. ndeysaan. di siyaare waa sëñ ci Daaru Salaam mm-hmm. ñoom sëñ Papa Ndiaye ñoom sëñ Fallou Faye sëñ Tafa Faye mm-hmm. maa siyaare ñoom Mbaye Samb mm-hmm. di siyaare waa waa Daaru Salaam ñëpp rek waa daar Daaru Salaam di ñaan sama kàddu fekk lañ ci jàmm barki maam Cheikh Fall amin amin waay amin Saara maa ngi lay siyaare yow yow sama jëm bopp nag maa ngi lay ñaanal saa borom defal la tawfeex ak taysiir amin amin amin waaw fa ñoom dijje bu si àgg ak ñoom Pape Cheikh Diallo. ma rawlee na ah. ñoom Cheikh Sarr saa borom yóbbu la fa amin yaa rabbi ci biir ak ci biti nam naa leen yéen ñëpp nag di saare maam <laughs> maa ngi koy saar baax di saare suñ Balla Jenn di saare waa kër gi waa Daar Salaam ñëpp daal ku lim juum waa ah, Saara waaw. Ah. Eh, instant yi ci ban caali nga nekk nii. maa ngi caali Jalambanta. caali Jalambanta ca Ziguinchor. waaw ah, balaa nekk nii ndeysaan loolu am na solo. côté sukk papaaya. sukk papaaya ca Ziguinchor. waaw waaw waaw waaw a ngi nuyu <laughs> wuy ma. waaw nuyul ma waa Ñafuleen ak waa Bukat ak waa marché Tilleen. waa marché Tilleen waa marché Bukat. <laughs> <laughs> waaw yaa ma tooñ. yaa ma tooñ waaw maa ngi leen di bëggee. <laughs> di la waaw ah, maa leen ñëw waa Ira waa Ri Issa waa Sanji ba ñëpp maa leen di jaayaleel. waa ak waa ak waa eh, eh, ak eh, fële waa Lindiane. waa Lindiane. ak Grand Dakar. waa Néema 2. ak ak ay Grand Dakar. waaw <laughs> maa lay siyaar baax a baax a baax. jërëjëf. waaw nekkal ci jàmm waa Saara. ak saa nii la ñëpp. allo Saara. waaw. mais namm naa yaama de yaama. yaama yaama. <laughs> ndeysaan wàññeeku na maa ngi koy euh, bége bu baax a baax euh, mu nga foofa ca Ziguinchor euh, di ko kontaane lu bëree bari Saara Lo Baye Fall taalibe Serigne Mourtala Mbacke moom Serigne Abdourahmane Mbacke dëkk fii ci Daaru Marnaan di ko ziyaar bu baax di nuyu waa kër gi yëpp di leen kontaane lu koo xamante ne nii rek yaa ngi nuy bàyyi xel lës expérimental euh, bi laa bëgg su ko defee euh, euh, ki nga xamante ne nii mooy sama invité bi King tiro daal di nuyoo ay fansam ndax gars yi ñu ngi koy teewlu waa jur Diourbel ñu ngi koy seetaan direct ca li nga xamante ne nii moo di YouTube ba di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax kon man ngeen a jaar ci 88 628 19 05 88 628 81 08 macha allah di ko bëggee bu baax a baax euh, Fall solution euh, borom taxawu Sénégal maa ngi lay bëggee lu bëree bëree bëri di la ñaanal jàmm ak tawféex nga bëggal ma waa Njaayeen euh, ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax xam naa ne dinañ ñëw ci kanam nag ndax jafe-jafe yi nga xamante ne nii am na ci diggante Mbàkke jàpp Njaayeen ba sañ ci Daaru Salaam dinañ ko jooytuwaale ci li nga xamante ne nii mooy émission bi kon ay ca lës am na solo. lu tax lu yomb tey suba bu xëyee sax Mbàkke Bawol jege tawa cat ba cat siyaar naa leen de bi sama saaj Bawol maa leen di bëgge de Sénégal metti lele loole Sénégal Sénégal Sénégal metti loole maam booy di jooy rakk ndaw ak caat ñëpp a ngi jooy fii du dara fii du tus Sénégal daal xaw ma lan la mais dafa mel ni dañu amul tuus njëkk fi nekk di dox ci ay fii solo Sénégal a metti macha allah euh, Macky déglul sa sa sa sa sa doom ji ah. ah loolu de am na solo lan moo tax euh, euh, woy wi Sénégal a metti lan moo waral message bi nga xamante ne nii moom ngay lancé nii dégg naa ci biir tamit nga wax comme li nga xamante ne nii mooy bawal rawatina Jurbel ga nga jóge jafe-jafe ya nga xamante ne nii moo fa am. oui Modou maa lay béggewaat encore di siyaare waat sama saayit bawal. maa leen di bégal lu bëri. Mhm. boo déggee di ko. ayca yóbbaale mbokk mi. Euh, salaamaaleykum. waa ku baax maa bu baax. naka yi tey jërëjëf kooku. man la Mbaye Ndiaye Diourbel. Mbaye bu mag bi. ñu ngi lay dégg bu baax. alo dèjà ñu ngi koy euh, bége lu bëree bëri ah sa mbay mooy menaceeru ki nga xamante ne nii mooy King Tro nekk foofu ca Diourbel man ngeen a jaar euh, fii nga jaaraatoon rek 88 la 628 19 05 wala 88 628 81 08 macha allah Baol Média FM la 88 point 5 yaa ngi doon wax lu am solo ci li nga xamante ne nii mooy Diourbel ak euh, jafe-jafe yi rawatina Baol. Bawol dafa nekk dëkk ba nga xamante ne nii waruñ dem bàyyi ko ginnaaw quoi. Mhm. parce que dafa fekk ne comme Jurbel mhm. da ngay gis ku génn sax dem feneen investir fa. du mhm. doo ko waxee foo bàyyi ko du la nangoo wax carrément fi mu dëkk. day wax beneen dëkk ba nga xamante ni fa la dëkk. te yaakaar naa ne waruñu xeeb fi ñu dëkk quoi. dañ ko dafa war a nekk fier ci ñun. ñu mën fu ñu mën di dem di wax ne fii leen dëkk quoi. parce que Diourbel dafa nekk ne gars yi dañ ko dafa mel ne dañ ko boole boolewut ko waa si yeneen ci réew mi daal ci réew mi mm, ndeysaan ba tax na dara amu fa mm. nekkul question dañuy xeeb suñu boobu mais Diourbel dafa amul la nga xamante ni comme bu ñu génnee mën nañuy dem foofu comme di dox suñuy yitteeg affaire pour tax Diourbel seen maire jàmbaar la de oui jàmbaar la jàmbaar la mais. Hmm. xam nga nit kuy liggéey ku ne dafa am ñi nga xamante ni ñoo ko war a jàppale quoi. Hmm. parce que bu fekkee nit na ngay liggéey te kenn jàppale wu la. Hmm. comme xam nga kenn nit mënul mënul. mënul matale lépp waaw mënul matale lépp. mais dafa fekk ne comme gars yi nga xamante nii dañuy juddee fii màggee fi yoroo fi génn dem feneen am fa leneen la nga xamante ni bu ñu ko defoon fii Diourbel wala fii si si Touba. dina mën a yóbbu comme fañ nekk mm-hmm. réew mi dina mën a mel comme noonu mm-hmm. mais fii dañu sedd comme ku fi jógee rek dem feneen soo suñ la waxee foo dëkk doo nangu ne Jurbel laa dëkk waa da ngay nëbb sa taamu nangam sangam mm-hmm. daf see bëri si si réew mi lool même bu dul Jurbel sax euh, aussi et cetera et cetera yeneen ak yeneen waaw beneen bëri na waa mais dama bëgg comme ñi nga xamante ni dañoo daw dem feneen ñu dellu siwaat fi ñu jóge xam ne nuñ ko dem bàyyi ko ginnaaw ñu dem bàyyi ko ginnaaw te réew mi it a dem baleen ginnaaw quoi. Mm. comme soo saa yoo demee ba réer olof daan naan soo demee ba xamatoo fi nga jëm. da dellu fa nga jóge woon mm, am na solo. Mm. ndeysaan euh, loolu am na solo dégg nga euh, message bi nga xamante ne nii macha allah euh, moom la lancé mu doon lu am solo ñi nga xamante ne nii macha allah ci bawal gi lan dëkk waaye dañuy dem ci yeneen dëkk wala ñëw dem feneen. di fa investir te bàyyi fi nga xamante ne nii fa lañ jóge bàyyi fa seen doomi dëkk ak ñi nga xamante ne nii ñoom lañ yaroon loolu ànd ak ñoom kon loolu lu am solo la ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax euh, ki nga xamante ne nii moom lañ àndal ci euh, émission bi muy suñ sponsor leader euh, muy Baye Pape mu Serigne fàllu wala Baye Pape mu Soxna May Galas dëkk foofa ca Touba sañ ci Daaru Salaam are maam Seex di ko bége Euh, nga xamante ne ni day yëngu ci lépp loo xamante ne ni jëm na ci wàllam ñaan moo xam yow mi nga xamante ne ni cat daf la sonal wala yow mi nga xamante ne ni rab daf la sonal wala seytaane euh, bàyyi paam boo fa demee rek incha allahu rabbi dina la fajal sa ay aajo te dina la taxaw bu baax a baax a baax a baax Euh, euh, di nuyu waa këram yëpp di ko kontaane soxna Daba ñu ngi koy nuyu baax a baax Daba Diagne ak ki nga xamante ne nii mooy sunu yaay ja yaa asu seen euh, ak meer Diagne ñoom ñëpp maa ngi leen di bëgg maam Jaara Ayda bàyyi wuñu waa kër ga kenn ñoom fàllu ñoom aj ma ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëgg bu baax a baax kon Baye Pape nag jaaxle jeex na ak Baye Fall baay Baye Pape ñing moom Serigne Fallou Mbacke rawatina nag ki nga xamante ne nii moo ko bëggal boppam muy soxna May Galas Mbacke Euh, macha allah euh, nekk foofu ca Touba sanc Daaru Salaam are maam Cheikh muy yëngu ci wàllam ñaan moo xam yow mi nga xamante ne ni sax da ngaa bëgg a seetlu wala nga bëgg ku la defal ay sangat yéen ñi nga xamante ne ni macha allah da ngeen a bëgg sax bayre bëgg a siiw macha ca la ngeen di yëngu nit ñi dégg leen ci te bàyyi leen xel. Baye Pape moo ci gën a aay te moo ci gën a gaaw numéro téléphone am nag mën ngeen koo jël 76 la 533 92 56 92 56 loolu mooy numéro téléphone am mën ngeen ko cee woo mën ngeen a jokkoo ak moom it tamit ci li nga xamante ne nii mooy whatsapp bi di nuyu waa mbaaram Serigne Fall yëpp mbaar ma nag képp ku fa dugg sa aajo faju soxna May Galas euh, Mbacke moom moo ko fa def te moo ko fa wax tamit am na solo kon jaar leen ci 88 628 19 05 88 628 81 08 waaye tamit bu leen fàtte li nga xamante ne nii mooy sargal mu Diop Thiat mu war am sodi la 20 bi fële ca théâtre verdure bu Mbacke Bawol di ca woo koo xamante ne nii rek euh, da ngay bëggee Modou Diop Thiat PDC Baol Média FM wala ngay bëggee ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ci rajo Baol Média FM personnel bi lu koo xamante ne nii rek yaa ngi ni bàyyi xel kon sodi 19h na fa fekk ñëpp ki nga xamante ne nii mooy sunu parrain mooy monsieur le maire Galoba maire de Mbacké waaye ak ki nga xamante ne nii mooy sunu marraine mooy soxna Bali Mbacké taxaa ak ay invité d'honneur Ah, ñu ngi leen di bëgg baax a baax 88 la 628 19 05 88 628 81 08 mën ngeen a jaar foofu ñu daal di jokkoo dinañ te ñëw ca kanam kanam jox leen ñi nga xamante ne ni ñooy parrain yi ak marraine yi ak invitation d'honneur yi kul koo xamante ne ni tamit jaaroon nga ci Baol Média FM invitation deneur nga fa amee ñëpp nan fa teew ak ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ay rajo ci dëkk bi presse en ligne bi bàyyi wunu kenn kon ku fa ñëw rek di nga gis li nga xamante ne ni moom la euh, xale yi Baol Média FM wala personnel bu Baol Média FM bëgg a seen kilifa gi nga xamante ne ni mooy mu jóob caat foofa ca théâtre verdure bu Mbàkke muy sodi la 20 incha allahu rabi à partir de 19h ah na ko ñëpp bàyyi xel te waajal ko bu baax a baax a baax a baax a baax kon danga may jox benn son king ñu daal di ko déglu su ko defee ñu daal di ñëw a ñëw ci émission bi daal di yaatal. ñu déglu ko bàyyi ko xel su ko defee ñu door xuus ci waxtaan man ak moom kañ la dugg ci euh, aar bi ak lan moo ko ci tax a dugg ak bi duggee ci aar bi ba léegi euh, yan euh, programme la teg ak concours yi bokk ak nangam sangam ayca. Experience Music dafa soo jekk daru mësuma dajeel xale bu rafet bi jël na xol bi yóbbu jël jëmm sa nam ñu jox ko la bëgg man ma def ko ndax sa wetan sa éero ma yow la tipo sa taat bi man mësuma ko gis feneen xanaa def la bind ba noppi sànni mooy King Tero Bawala di ko bëggee bu baax a baax a baax euh, son bi ndax mën nanoo euh, xam ban son la noonu la tudd ak kañ nga ko génne son bi mi ngi tudd xale rafet. xale bee rafet. oui son bi génnagul sax parce projet bi la boo ko wax. maa ngi ko génnee depuis mois de janvier bi. janvier. oui mhm. maa ngi boobu. maa ngi ko def comme dama dama gis ne war naa mën a def comme son bu mel noonu parce que. boo xoolee fii nii aar bi comme chaque jour rek rab bi ni mu demee quoi chaque jour day changé. Mhm. day nekk benn niveau. parce que niveau bi mu nekkoon du ma ne sax jóge na fa parce que xam naa ne dina fa dellusiwaat. Mhm. instant yii nii ku nekk rek da xamante ne da film moom ngay def quoi. Mhm. dama yor instrument bi. déglu ko mu jox ma comme sound bu mel nii. ma teg ci lu mel nii mu dugal ko joo mu nice quoi. ma répété dugal joo mu nice. ma enregistré ko génne ko. bu ko boole sama projet parce que joxe gu ma ko quoi. joxe googu maa ngi yaa ngi ci projet eh, bi. Eh, eh, King kañ nga kañ nga kañ nga dugg ci li nga xamante ne nii mooy rab bi kañ nga ci dugg. rab bi maa ngi ci dugg depuis 2020. 2020 nga dugg ci rab bi mais boobu da newoon ci groupe boo xamante ne nekkoo woon individuel comme yow rek ci groupe nga nekkoon. oui maa ngi nekkoon ci groupe bu ñu naan Super Star. oui maa ngi dem di dem ba gaañ bi ma nekkaloon. daal di. Kiré quoi. waaye mm. ma ma job ma ànd ak beneen gars mi ngi tudd Milk Sow. Mm, mm. ma job moom def benn son mënuma ko gëm son boobu laa mujjee def moom. léegi ñu gisaat beneen gars comme Lil Pro. ñu boole ko comme ñu def collaboration. def benn kuréel tuddee ko Crazy Gangs. waaye maa ngi jóge foofu ma dem ba gis ne war naa mën a jël sama yoonu boobu ma daal di jël sama yoonu boobu. moo tax ma comme may def sama yoonu boobu et tout Euh, mais bi nga bi nga bi nga béré sa avant avant ngay nekk ci rab euh, ci lan nga nekkoon avant ngay nekk ci rab. oui bi ma avant may nekk ci rab dama nekkoon melomaan doon doon concert bu am ma dem. Mm-hmm. maa ngi mujjee dem concert Kadi Ghetto foofu comme Bawol foofu. Mm-hmm. maa ngi mujjee dem. dama dem gis gars yi ñuy def naa ma ne pourquoi pas yi mun waruma ko mën a def waa mm-hmm. waruma mën a def comme rab bi parce que nii dañuy def gëm naa ne su ma ko defee dinaa ko mën parce que dàquñ ma ko quoi mm-hmm. léegi si la sama benn gayen am benn concert mm-hmm. jox ma instrument ne ma da nga ci war a live quoi ma dem assuré ko eh, mu jàll léegi si la ma ne léegi dañ koy jéem a dugal joo léegi si la dem expérience musique mu xaar mu kareel ma sound bi ma dugal ko Diop ma màgg daan si fa laa dugal sama premier son. Mhm. bi bi bi fi Manzo nekkee ma dem si Manzo léegi Manzo dafa kiite nekkatu fi quoi. Mhm. léegi si laay continuer sama projet di ko jox ci. Mhm. job ci expérience musique. Mm-hmm. ndeysaan euh, loolu am na solo waaye euh, nga nekk ci groupe euh, ba mu yàgg nga génn ci groupe bi jël sa yoonu bopp ak ak jafe-jafe yi ci nekk yëpp loolu nan nga koy dundee wala dafa am ñoo xamante ne nii danoo nekk ci sa ginnaaw di la gunge ak am ñoo xamante ne nii ñoo lay tracel sa yoon maanaam ñoo lay bindal say texte ngir yow dem studio rek ngay def appliqué wala wala wala lépp yow yaa ko seere sa bopp. non samay texte man maa koy yeeral sama bopp waaw. Mm-hmm. parce que am naa staff time kiñ teroo. Mm-hmm. am na staff ñoo nekk sama ginnaaw ñooy gérer programme yeeg yooyu. Mm-hmm. ñoom ñoo ko gérer mais man texte daa resal sama bopp. ak leneen laa xamante ni artiste bi war na ko mën a dox ma dox ko. Mm-hmm. li si des manager bi moom mooy dugg. mooy dugg lijjanti ko. man ay sound laay kale sama bopp job mu naaj ma dugal joo. job mu naaj ma daal di dugg mais bi nga bi nga bi nga beroo. bi nga beroo ak ak léegi maam bi nga génnee si groupe bi dem ci sa yoonu bopp boobu ak léegi ci ñaata at la war a toll. non ay mois rek ah, ci ay weer la toll. Mhm. mais boobu ak léegi nii ñaata son nga fi def bi nga jëlee sa yoonu bopp ak léegi. def naa fi def naa fi 300. Mhm. def naa fi 300. Mhm. boobu ak léegi def naa fi 300 ñi ma yi ma yeneen yi si topp. maa ngi ko defee woon bopp bi mu koy liggéey maa ngi foon si biir si biir groupe Mm-hmm. yaa ngi woon ci biir groupe bi mais est-ce que King euh, mas ngaa bokk ci benn benn benn concours boo xamante ne nii euh, bu concours rab la. bi nga tàmbalee rab bi ak léegi. oui bokk naa si benn concours bool stress saa mm-hmm. foofu ci Bawol kàggu moo ko moo ko organisé woon. Mm-hmm. foofu Diourbel. oui boobu sama première sama première compétition. yàlla def si premier tour yi lañu may éliminé parce que dama comprendre woon aar bi ak foofu ni mu demee parce que foofu dañuy bëgg comme nga téye micro bi ñu mën a xam ne nga wax. Mhm. te boobu la sama premier jour. Mhm. comprendre ko parce que concert yi xam nga concert boo si nekkee rarement ngay téye micro bi. Mhm, parce que parce que kii bi euh, kii bi mi doon euh, playback bi. comprendre mu ko nag ci laa dem foofu. Hmm. gars yi ma àndaloon sax dañ may wax teen micro mais su ma si concentré woo damay dem benn instant. da nga koy bàyyiwaat bàyyiwaat hmm, hmm, mais euh, est-ce que bi nga jógee ci loolu noonu comme comme loolu noonu daanaka ci lan la éliminé surtout premier tour yi boobu ba léegi bokkaatoo ci beneen benn concours. non non boobu concours boobu def bi mu jaaree beneen amaatagul parce que xam naa si mois yi nag dina dellusiwaat. dina dellusiwaat bu xaasi bu niga bi ak bu DJ Kaagu woowu. waaw ndeysaan ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax euh, ñoom waa Diourbel rawatina ki nga xamante ne nii mooy Maguette Mboup madame Guèye ah. di ko bëggee bu baax mu doon sa rakk ndëkk foofu ca jurbeel doon sunu xarit ndax lii lépp bu amee yàlla ak moom la moom moo nu boole ak yow foofu ci Diourbel ma koy nuyu bu baax mu doon sama sista bu baax macha allah di ko bëgg lu bëree bëri màgget maa ngi koy siyaare lu bëree bëri di ko ñaanal jàmm euh, ñu mën a jaar ci 88 628. 19 05 88 628 81 08 Baol Média FM la 88 point 5 di nuyu kull koo xamante ne nii rek yaa ngi nuy bàyyi xel ak foo mën a nekk di la bëgg lu bëree bëri rawatina waa marché maam jaara bu sant Daaru Salaam yaa coro maar maa ngi koy bëgg bu baax di ko kontaane yaa coro saar bàyyiwul kenn eh, di nuyu Omar Seck cosmétique diwaan si la di ko kontaane lu bëree bëri di leen ñaanal jàmm 88 la 628 19 05 88 628 81 08 ñu daal di déglu beneen sound bi eh, daa door ñëwaat ci li nga xamante ne nii eh, mooy waxtaan bi ak sponsor bi nga xamante ne nii moom lañ àndal waaye tamit ak programme bi ñuy waajal la foofu ci théâtre Verdure bu Mbàkke sargal mu Jóob Jaat Aha. Experience music. aduna ko mën a julli wi la aduna ko mën a julli wi la dama toog ba digi joor dëdd dëdd nelaw jeex xel mi sama xol tooy ma sa gëj gëj a gis dem nga bàyyi ñu fekk naqar ak tiis dama toog xalaat sama xel na ci yow daf ma jël way wi jagleel la ko kara sow àdduna ngi moo lay minal tey suba mu doon ci lay xañ wéetaay man lay jooy ndax dam la gëj a dégg kara sew ci lan nga nekk mbaa yaa ngi ci jàmm dara gënul metti ndaw ñu lay jooy noppeetunu say na bu wan ñu gannaaw àdduna ngi dëgg daal ma jàmm waaye maa ngi ñaan baay ngeen jege bànneex waaye ronkan mënul nañu baay amar baay ñaa xëy ko fekk mu nekk tiis ak naqar ab sasa fi ne yàlla na la gënal fi nga jóge àdduna xëy nañu leeno bàyyi ñu dum ni weetu weetaay man moom lay jooyo xaddee ci xol yi mënatu la dekki ñàkk nañu a yëg yaa fa caam ronkoñ fende gu sax ñu tàgg ñu yàmmu saan fitna rës sa ba jeex aduna safatuma gi neex benn bés fekk na selaw ma dee janeer mën na ma nelaw ba ari dem na asungam ci aduna sax suma warra xañ na ma yaaju baaxoon ci man daan ko la fi nga ne yal na la yàlla dolli yërmande fi nga tëdd tey yal na la gënal fi nga jóge ronkoñ mënu ñàkk tuuru ndax dañuy te lool maam dam nax ñu ba dem aduna ngi nekk melokaane mag na muy ware waaye maa ngi ñaan ku ne tëdd yàlla doon sa mbégte loo ko ne tiirondoo xalaat ci jugandoo dara gënul metti du faal mu fi tàggoo bàyyi ñoom ñaqar ak tiis ñu lay ca neer bàyyi seex saar yal na la bànneex jiitu sa biir bàmmeel maam tënim yaa xadi moor aduna yaa ko mën a wor soo sa jaw la ñuy jooy ba bàyyi ma maga Jóob yal na maa ngi ñaan sa dëkk waaye doon mm-hmm. uh, am na solo uh, son bi ndax mën na noo xam uh, nan nga ci tudd ak ñi nga ci doon rendre lu hommage ñu ñu mel ne ñu génn àdduna lan say lan lanu ñenn ñi sama ñu mag lañ kenn ki sama xarit mooy yàlla sox moom Mm-hmm. ñoo ànd depuis ba ñu nekk xale. Mm-hmm. mais yàlla def mu génn àdduna quoi. Mm-hmm. léegi ma ne pourquoi pas mënuma ko gën a mënuma ko def génneel ko avance yàgg naa koy waaj depuis cours boobu ma doon wax super saa. mais bii nii bi nga beroo nga ko def quoi. waaye bii bi bi ma beroo laa ko def dama bindoon texte bi bindoon naa ko bu yàgg nag. bindoon naa ko bu yàgg mais dama dem ba xam ne war naa ko mën a génne quoi. parce que sama xarit la woon te aussi ànd nañ def la ne quoi. Mm-hmm. léegi si laa bind son bi di ko ko moom moom parce que moom moo waral son bi quoi. Mm-hmm. moom moo waral son bi ma génn son bi ñooñu ma si tudd noonu samay dëkkandoo lañ ak samay papa. Mm-hmm. ak kenn ki sama sama bàjjan la quoi. ñoo dëkkandoo fa waaye dëkkandoo lañ. ak na bu moom aussi ñoom ay xale lañ woon depuis ñooy ànd depuis ba ñu nekk xale ba léegi. léegi si laa génn son bi tuddee ko wéetaay. wéetaay oui si ko rendre hommage moom ak képp ku nekk mhm, mhm. Euh, ne xam na ne euh, li nga xamante ne rab mooy doo doonul ne da ngay bind bind texte rek euh, daal di dem dugal studio daal di génne ndax ku ci nekk xam na ne déplacement yi surtout lu mel ne featuring mhm. wala nga tëgg lu biit wala nga dem sax ci studio da ngay fay ndax dafa am ñu nga xamante ne ni ñoo la seeral loolu wala yow lépp yaa ko seeral sa bopp. non depuis may rab nag dama amoon benn ménagère man kese maa doon dem mais dama dem ba gis sama benn xarit mooy sama ménagère boobu léegi moom moo ma seere moom moo ma nekk sama ginnaaw. si hmm. bi ma am staff léegi si laa dem ba sound ma koy kale di dem studio déplacement yi léegi nag mu am concert sori mais staff bi yëpp duñ mën a dem quoi. man hmm. maay manifester wu ak sama ménagère boobu. Hmm. dem. aussi màggeen boobu moom sama rakk la mais jàpp na si jàpp na si bu baax. Mhm. aussi maa ngi bëgg a teg benn événement sax. Mhm. après weer mois yi ñu jëm. Mhm. mais surtout dafa nekk dañoo kiiwagul quoi. da ngeen a euh, waxtaanagu leen ci. ndeysaan waxtaanagu leen ci macha allah mais euh, boobu ba léegi euh, dafa mel ne tëggagoo concert waaye gars yi ñu ngi lay invité ci seeni ay concert oui tëggaguma concert mais gars yi ñu ngi may invité quoi. Ah, après sax xam naa am na benn invitation fële Kaolack. Mhm. foofu benn label bu nekk foofu. Mhm. fa laa war a dem le 22 incha allah. Mhm. war naa faa dem benn concert. macha allah euh, loolu am na solo euh, mën ngeen a jaar ci vingt 88 628 19 05 kullu groupe boo xamante ne yaa ngi ci diggante euh, Touba ak mbaake rek ñi ngi lay nuyu bu baax a baax di la ñaanal jàmm ak tawféex. duñ fàtte ki nga xamante ne nii mooy sunu rakk di sunu lépp muy xale mag waaye tamit waa xam xel ñi ngi leen di bégg bu baax a baax waa sans voix waa raayit kuru ak ñi nga xamante ne nii ñooy waa good morning Ah, ñu ngi leen di béggee lu bëree bëree bëri bépp kuréel bu nekk ci sanc yi maa ngi leen di béggee waaye waa Mbàkke ak waa Touba ñu ngi leen di bàyyi xel baax a baax di leen kontaane 88 ah, la vingt 628 19 05 88 628 81 08 waa macha allah waaye maa ngi koy bëggee baax a baax moom Ziga jamono ah, di ko bëggee lu bëree bëri nekk foofu ca Aracine Fallou nu maam Thierno Ndamal Daaru maa ngi koy kontaane bu baax a baax waaye ku koo xam na nii rek yaa ngi ni bàyyi xel ñu ngi lay bëgge bàyyi Cheikh Gueye Rijaal ñu ngi koy bëgge bu baax a baax a baax a baax Mara Ndiaye Joal Fadiouth ñu ngi koy bëgge euh, di bëgge ku koo xam ne ni yaa ngi Joal Fadiouth euh, mbay Diagne ak ki nga xamante ne nii mooy mbay Samb ñu ngi leen di kontaane lu bëri ak waa gàlle bi bàyyi bàyyiwun kenn ñu ngi bëgge ñëpp di leen euh, ziar 88 la 628 19 05 88 628 81 08 ans Baol Média FM la 88 point 5 nijaay Modou Sène maa ngi koy bëgge bu baax di kontaan ci moom di bëgge lu koo xamante ne nii rek yaa ngi nii bàyyi xel ak foo mën a nekk di leen fàttaliwaat rek li nga xamante ne nii mooy programme bi nga xamante ne nii waa Baol Média FM ñu ngi koy waajal foofa ca théâtre Verdi bu Mbàkke muy doon sodi la 20 bii nii incha allahu rabbi foofu ci théâtre verdure bu Mbàkke di ci woo lu koo xamante ne nii rek da ngay bëggee Modou Diop Thiat PDG euh, Baol Média FM nga xamante ne nii moom la ñu fay sargal waaye tamit di ko ànd ak askanu Baol bi yëpp ndax taxawaay bi nga xamante ne nii euh, taxaw na ko ci Baol di nga jël ay ndaw yóbbu leen ci rajo yi ak télévision yi ndax ku ci nekk rek li nekk ci yow Euh, bëri na ci ñi nga xamante ne nii mu Diop Thiat moo ko def ci ñoom euh, kon jot na ñu daal di ko sargal kon sodi lay doon tombé ak la 20 euh, juillet fii ci théâtre Verdure bu Mbacké ki nga xamante ne nii mooy sunu parrain mooy Galoba waaye ak ki nga xamante ne ni mooy marraine bi mooy euh, soxna Bali Muntaxa euh, di ko di ko di ko euh, ak Basirou Gaye mu bokk ci RDR Yeesal mooy parti Modou Diagne Fada Basirou Gaye ak ki nga xamante ne ni mooy Galo Ba ñooñ ñooy parrain yi marraine bi mooy soxna Bali Muntaxa waaye tamit am nañ ay invité d'honneur yoo xamante ne ni ñu nga leen di xaar ca bis ba foofu ci Mbacke Bawol théâtre Verdi bu Mbacke muy sodi à partir de 19h waaye tamit euh, di ci woo waa fan su kër Bawol média gi yëpp bàyyiwun kenn kon daal bis ba képp koo xamante ne nii teew nga fa rek euh, macha allah di nga xam ne euh, bis du tuut borom lay tollool waaye di ci woo artistes yi yi nga xamante ne nii ñoo nekk ci dëkk bi yëpp di leen ci invité na rappeurs yi ak ñi nga xamante ne nii euh, ñooy waykat yeeg ñëpp ñi nga xamante ne nii ñoo yor spectacle ba nag euh, bëri na lool ku ci mel ne Sandindi Buur Géwél Mbaay ak ki nga xamante ne nii mooy njànkudo ñoom ñëpp ñu nga leen fay xaar ci li nga xamante ne nii mooy ay comédie ñoom ñëpp kon foofu ci théâtre Verdure bu Mbàkke lay doon muy sodi la 20 incha allahu rabbi ay ca 88 la 628 19 05 88 628 81 08 88 628 vingt vingt 628 628 81 08 mais su ma euh, bëggoon a xam euh, lan moo la dugal ci li nga xamante ne nii mooy rab danga amoon baay juy rab wala mag juy rab wala xarit boo xamante ne moom nga daan àndal guddeeg bëccëg euh, muy rab wala lan nga gis ci li nga xamante ne nii mooy rab ba tax nga dugg ci. amuma baay bu rab amuma amoon naa benn grand mooy ki ma la wax ne moom moom dugal si aar bi. dama doon ànd ak moom dañu doon am invitation muy am invitation ma ànd ak ñoom dem nekkoon seen fans ma dem ànd ak ñoom si laay dem foofu di leen gis li ñuy def neex ma aussi ma ne faw ma def ko mel nii ci la gaayan bi benn gaayan bi muy Modou Tàng ci la ma woo benn concert comme li ma doon expliqué jox ma benn instrument ne ma faaw nga def ci teg si ñëw live quoi léegi ci laa ko def mu mu nice ñu dugal ko jiw waa noonu la deme may may dund di dund ba yàlla def may bind mën a bindal sama bopp di mën a defal sama bopp lépp si lay jël samay xaalis di ko dem studio di kale samay sama quoi aussi ñu jàpp si sama manager boobu muy mbay ak màgget bu aussi ak mboolem sama staff muy time King Turo ñëpp jàpp si bu ma mën a egg si fii Euh, ñoom ñoo ci ñoo ci jàpp daal teg ci loxo euh, ba ba tax nga dugg ci milieu rap bi waaye ndax rap dafa am benn artiste rappeur boo xamante ne ni da nga koy bàyyi xel di ko topp wala wala yow sa yoon bopp nga jël parce que ñu ci bëri nag am na koo xam ne nii moom la ñuy bàyyi xel di ko roy mais bu buñ bëggoon a xam ki moom ban artiste euh, rappeur lay roy. man yàlla dafa neex moom sama bopp mooy sama idole quoi. sama bopp mooy sama idole. mais léeg-léeg ma dugg ci internet bi su ma bëggee dégg la nga xamante ni moom mooy xam-xam quoi damay déglu pagoti parce que moom ay saanam yëpp boo ko seetloo dañ ci joxe xam-xam su ma fekkente ne dama bëgg a dégg li nga xamante ni mooy olof ci hip hop bi damay dem ci Gaston parce que ay saanam yëpp boo ko xoolee ay olof la ci wax mais à part loolu moom sama bopp mooy sama idole quoi. Mm-hmm. apa maanaam Gaston daal yaa ngi koy bàyyi xel di ko teewlu ak ki nga xam ne nii mooy Pakoti waaye euh, mais euh, am na ay rapport yoo xamante ne nii euh, ñu mag la nekk ci diggante Touba ak Mbacke ba Jurbel googu noonu sax bëri na ay rapport ndax am na fa tey te ñoom ñoo la jiitu ci rab bi est que am na ñi nga xamante ne nii yaa ngi leen di bàyyi xel ci li ñuy def. non non aw ma kenn ka xamante ni comme bàyyi naa ko xel mais damay man tamit su ma amee concert damay seetaan man it aussi suñu amee damay dem seetaan leen mais taxul carrément ma bàyyi leen xel nit ñi fi ñu egg war ma fa mën a egg quoi man damay chaque jour damay séntu fa pour cent xamante war naa leen mën a romb wala ma toll ñoom. Hmm. Hmm. Hmm. Euh, euh, léegi euh, ndax bun bun bun bëggoon nga nga nga defal ñu riim wala wala wala wala wala. wala euh, euh, free freestyle rap bu dëgër bi euh, ba ban ban nga ñu ci mën a kaleel comme ça ñu ànd ci ak auditeurs yi rime wala wala wala wala freestyle yow yaa xool bu hmm. kon kon indil ma bit bi kon mu riimal ma su ko defee ñu daal di kii dégtal ko li nga xamante ne ni mooy auditeurs yi waaye tamit mën ngeen a jaar ci 88 628 19 05 88 628 81 08 ñu daal di yóbbaale mbokk moom salaamaaleykum allo. à lui waaw ah. ah, xam naa ne bu fekkee ne ah, dafa takk ay écouteur da koy tekki wala su wàññee su landee ak li nga xamante ne nii mooy rajo mu daal di ko wàññi bu baax a baax a baax 88 la 628 19 05 88 628 81 08 ku képp koo xam ne nii dugg nga rek da nga ni déglu ci li nga xamante ne nii mooy sa téléphone su ko defee nga bàyyi ñu ci xel bu baax a baax déggante bi gën a mën a neex. Yeah. Yeah. ma nigga fii dañ ko tilim saaga flow aca buro dam la gën a didim ci ànd graan may teg rabu ni silim fii saaga flow aca buro maa ngi nekk siiñ moo may teg ci ànd fii saaga maa ngi nekk ci wàll media microphone teg ma nigga aca dawal bayra fii saaga flow allo. allo oui. Modou Bale. maa ngi siyaar maa ngi lay ziar baax a baax. yéen a ngi si jàmm. Baye Pape ñi moom soxna May Galas. Baye Pape moom soxna May Galas maa ngi lay ziar. suñu borom na loolu. jërëjëf moom sin fàllu. waaw ñoo ngi ziare bu baax ñu ngi lay bëgg bu baax. waaw mbaaram sin fàllu ñu ngi lay ziare bu baax di la nuyu. ndeysaan maa ngi leen di bëgg lu bari soxna yi yaay Fall yi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. ñoom yaa dabaak ñoom ñëpp. waaw di kontaan ci yow rek. Mm-hmm. da la ñaanal gudd fan ak wér yaram rek. amin amin amin amin di wax naan ci kaw ci kanam rek parce que sëñ Fall. Uh-huh. waaw ñu ngi ñaanal bu baax a baax a baax. waa Mbaaram Sine Fall de maa ngi leen di bége. waaw ñu ngi fi de wax dëgg yàlla. nekk ca Aremaam Seex. Aremaam Seex waaw. nga fekk fa Baye Pape moom soxna May Galas. looloo wér looloo dëgg sax. ndeysaan moom mi nga xamante ne nii moom lépp lu la sonal ci sa wàllam wér gi yaram rek. képp koo xam ne nii moom bëgg nga ay ñaan rek na seeti Baye Pape foofu ci arrêt Maam Cheikh sañ ci Daaru Salaam. na ko fi de barke hmm. hmm. waaw kon de moom xam naa nga nga nga waat gaay rek ñu déglu la te bàyyi la xel. incha Mm-hmm. waaw ñu baax di nuyu suñu boobu noonu. Mm-hmm. nuyu ñi nga bokkal plateau bi. ñu sonn solo di ko ñaanal gudd fan ak wér yaram rek. Mm-hmm, jërëjëf. te di leen wax naan ci kaw ci kanam rek barke bi Sëñ Fallu. ndeysaan. te dinañ leen seen sori nag barke bi Sëñ Fallu. ndeysaan. yëpp kuy déglu moo du Bala rek maa ngi lay ñaanal taw fi ak taysiir. billaay jërëjëf. yokk ak wér ak wér la rek. yow de boo ko ñaanee rek mu am moom si kàttanu yàlla. dëgg la kon sëñ Fall dina ko def barke sëñ Fall. ndeysaan yow moom boo ko ñaanee rek. di ñaanal soxna May Galas yàgg fi te wër rek barke sëñ Fall. Mm-hmm. ndax moom nag lépp moom la rek. ndeysaan. soxna May Galas la de lépp moom la barke sëñ Fall. lépp soxna May Galas la. lépp soxna May Galas la moom sëñ Fall. soxna May Galas moom sëñ Fall. waaw moo ma toogloo de na ma toogal fii di faj aajo yi bul demati fenn. ndeysaan moo ne la toogal di faj aajo yi rek barke kon nag moom sant rek laay def mm-hmm, mm-hmm, ndeysaan di ko ñaanal nag mu wër rek yokk wër ak na solo jërëjëf Baye Baab jërëjëf ndeysaan euh, na solo euh, ñu ngi koy bëgg lu bëri di ko ñaanal jàmm waaye di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram mooy euh, Baye Pape moom soxna May Galas Mbacke moom Serigne Fallou moom Serigne Touba nekk foofa ca Touba are maam Cheikh euh, am na solo ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax 88 la 628 19 05 88 628 81 08. ayca. yàlla ginnaaw ci loolu ma bi nga koy get nit ga microphone bi cek fu ma ko sekkal bàyyi la ginnaaw nit ga freestyle la flow get ma nii microphone bi cek su ma ko sekkee wala fekk freestyle la flow ma koy rap ci ënd ko am nit ga microphone cek ñu jox ma benn ville freestyle la flow sori ma ne da nga tilim su ma tee mag bi firi nga kepp mel ni jëlim freestyle la flow nit ga maa ngi nii ci ceero microphone cek dama xam li ma bëgg diggali ko bañ a toog fa ma jot sama gëdd gi xool mu ci bokk li ma xasa dégmal dama ba niveau ma toog lamb lañ set bu ca karaw de bàkku yaa ko tey ci ne lay mujje li xiir bi laaj boobu ba tey gisuñ ku ko joxee dafa mel ni da ngeen la rabbi xaaj na stil tëw ma koy joxe gaynde gém bi xiif na ñaata booy laa war a taxañ te ma jar la sir la kepp maaj di la ko xañ bi laay timis la ko amul fit doo ci génn robu ma lu tiis la maa ngi ci beneen level ay ca booy jëbal jugal ku yëngu ya yax duggi yée nga yax yéekat yax mais ma tuuti ma dugg si génne borom xel yi dëkkee naax li ma taraay falaay teeku maaj di laay di style flow ketal sa papa rap maa ka fan bi nekk dama ci gën di raw freestyle flow ak ca guro daan daan rap maa ka fan eh. dama bëgg su may rap ne ma jàkku xool ndax microphone bi amul kenn ku ma ci ciy xaritool kon kuy sàttal game bi fii ne ko na fete boor tëru ci biir gétt la ko jaar xaritool ay yox la yox la ñu dem microphone bi ñu jéem di style la ñu dem jox la ko nga gém lu may dellu ginnaaw ku ma ko seqal bala fa microphone check aca nigga bale naa la fa dama la koy jox ci underground buro maa la fal hey gang ba tey ci réew microphone ma wimbi rimbi jox la ko ci underground nigga gettal ma rimbi freestyle la flow microphone la wérow jox ko ci under eh ma serow amul may ci under bi ñu wet ci bi jënd microphone bi ceeb bi def ko jënd microphone bi maa ko jënd amul ñu may ci underground eh. bi eh, dama ci mooru eh jox la ko ci underground léegi day muuru Euh, loolu am na solo euh, di bëggee kullu koo xam ne ni rek euh, yaa ngi nuy bàyyi xel ak foo mën a nekk ay ca ki doon woote mën ngaa ñëw jaaral fi nga jaaraatoon 88 la 628 19 05 88 628 81 08 88 628 vingt 05 88 628 81 08 Baol Média FM la 88 point 5 kulu koo xam ne nii yaa ngi nuy bàyyi xel rek ñu ngi lay bëggee lu bëree bëri bale mbokk mooma ca kaw salaamaaleykum. maaleykum salaam Sow. waaw Baye Pape. ñoo ngi ziar baax. delloo alhamdulilah xam jox la soxna Asou. Mhm, jox ma ko waaw. waaw sama yaay booy. noo def fay biram. jërëjëf na def ñu ngi. Ah, kontaan naa ci émission bi. seen yéen ngi si jàmm baax. maa ngi lay siyaare di la sant di gërëm. jërëjëf. di sant soxna May Galas di sant géej gi laa <laughs> sono <laughs> ndeysaan am na solo ñu ngi koy bëgg lu bëree bëree bëri xam naa ne kooku day jënd géej gi jaay ko géej gi mu gaaw 88 euh, la 628 19 05 vingt 628 81 08 sama nijaay Moodu Seen maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax di la kontaane nuyul ma aada seen mëti ak euh, ki nga xamante ne nii mooy Baye Abdou Seen euh, moom daaru xafoor mu yóbbaale mbokk moomu salaamaaleykum allo waaw Modou ça va. ça na ngeen def. ñoo ngi fi yaa ngi si jaamu. kontaan naa trop billaay. <laughs> Maguette borom Jurbel. waaw man la borom Jurbel kontaan naa trop. jërëjëf. billaay dalal nga nit ku baax. ndeysaan mi ngi lay dégg. billaay nit koo xam ne ku yëg nit sama mag la mais su si man xam ba xam ñun ñoo bokk ndey ak baay sax ñun xoolal damaa bëgg ba tellement que ba ma xamante ne nii kii lu ne lu ne la may defal wur na yàlla. Uh-huh. mu nekk nit ku baax. Uh-huh, uh-huh. mosoo changé benn yoon wur na yàlla. man tamit moom jaral na ma lu ne wur na yàlla lépp lu ma am ci àdduna moom. ndeysaan. lépp lu ma am ci àdduna wur na alxuraan këri moom man su ma amee moom amul dama koy jël jox ko ko ndax moom. billaay ndeysaan. war na alxuraan kër yow tamit kontaan naa trop sama xol dafa sedd ba mënu maa wax. ndeysaan. maa ngi koy ñaanal suñu bëgg àgg si aar bi na ko fa yàlla àggale. amin waay amin màgget amin màgget. barki yàlla maa ngi koy ñaanal maa ngi sant ménagère am boobu mbay yàqu ci dara moom tamit. Mhm, mhm. maa ngi sant koo joon moom tam ñoom ñëpp wër na yàlla taxaw nekk si ginnaawam jàppale ko bëgg ko lool. Mhm, man ku bëgg taal rek man dama lay bëgg. ndeysaan. ndax taal man jaral na ma lu nekk. billaay ndeysaan. ma yàlla ma mën na mënoo wax moom sa xol sedd. màgget kontaan naa trop. Mhm. ndeysaan euh, ñu ngi koy euh, béggee bu baax a baax euh, moom màgget Maguette Mbouba di ko béggee lu bëree bari moom dafa mel ne ndeysaan sa doomu baay la yéen a bokk benn baay waaye ndeysaan mu bëgg la lool moom màgget di wootee foofu ca Diourbel. sama doomu baay la ñoo bokk ni nga rek. Mm-hmm. man ak moom dañuy jàppalante. Mm-hmm. ak sama benn rakk mi nday ak daba ak ñëpp ka nga xamante ne bokk nañu baay. Mm-hmm. dañuy jàppalante soo xasante wuñ dara waa. déjà. Eh. Euh, loolu am na solo ñu ngi koy nuy bu baax a baax euh, moom Maguette Mboup euh, madame Guèye nekk foofu ci Diourbel di ko bëggee bu baax a baax di nuyu ku koo xamante ne nii rek yaa ngi ci Jurbel di leen kontaane lu bëree bëree bëri fu waaye mën a nekk rek duñu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu yaa Faatu Mbay soldaaru Sëriñ euh, Saaliw maa ngi lay nuyu baax a baax euh, Njuuka Mbay yaa Njuuka maa ngi lay bëggee bu baax nuyul ma waa kër gi yëpp maa ngi leen di bëggee di leen kontaane bu baax a baax MC faatal maa ngi lay bëggee nuyu ma waa Caali Mor Mbay bàyyiwuma kenn maa ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax 88 628 19 05 88 628 81 08 88 628 19 05 88 628 81 08 Baol Média FM la 88.5 nekk fii ci Mbacke tabla caabi xàll wa ma dëkk bu sell ba di Touba Mbacke ku lu koo xam ne rek yaa ngi ni bàyyi xel ak foo mën a nekk moo xam nga ni seetaan ci euh, Facebook bi wala YouTube bi wala ngeen ñuy déglu ci FM bi 88 point 5 fu waaye mën a nekk ñu ngi leen di bëgg bu baax a baax di leen kontaane di leen ñaanal jàmm ak tawféex di ko sàkku ci yéen bu baax a baax a baax 88 la 628 19 05 88 628 81 08 Baye Cheikh maa ngi lay nuyu bu baax jërëjëf kontaan naa bu baax a baax euh, Sine Ndiaye. maa ngi lay nuyu baax kontaan naa bu baax ci déglu bi ak bàyyi xel bi ayca 88 la 628 19 05 88 628 81 08 di nuyu waat bu baax ki nga xam ne nii euh, mooy baay Pape mu soxna May Galas di ko bége di bége waa kër gi ñoom yaa daba ak ñoom yaa astu yëpp bàyyiwul kenn di bëggee ayda ak ki nga xamante ne nii euh, mooy Maam Jaara Séeri Baye Sall Sine Saliou mu ndaw ñoom ñëpp bàyyiwun kenn ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm ak tawféex mm-hmm. euh, euh, king macha allah euh, li nga xamante ne ni mooy rab bi ak jafe-jafe yi ci nekk nga xamante ne ni soobis moom yombut ku ci nekk da ngay wax jëmee ci boor kii di xëccit jëme fee ndax mas nga cee dund yenn jafe-jafe yoo nga xamante ne ni taxoon na nga bëgg a découragé wu wala. Ah, non man mosuma si dund benn jafe-jafe ba nga xamante ni mën na ma découragé wala quoi. parce que nit ki bu fekkee neen dangaa gëm dara di si dem waroo waroo de gestu ñu nekk sa ginnaaw quoi parce que ñenn ñi dañuy bëgg nga dem ñi bëgg nga des ginnaaw parce que lu ñëpp bokk di xëccoo moom fa mu métti. Mhm. mais liggéey rek moo lay mën a eggale fa nga mën a jëm quoi. Mhm. man moom sama côté moom lépp lépp nice parce que lu mu yenn sama bopp yenn naa ko ñu des. Mhm. amu kenn ka nga xamante ni naa xëccoog moom. hip hop bi parce que looy xëccoo dafa fekk ne dañ see mënta jot wala dañ la ka dàq. Mhm. te man yàlla def na ne loolu lépp nekku nekku sama kii waa nekku sama business. Mhm. man sama bopp quoi moom moo ñor ku nekk la ngay def moom nar a ñor man mais man li may def man moom ma ñor waa parce que ci laay liggéey parce que nit ki loo perdre sa temps dafa fekk ne da nga ci bëgg dem fu sori. Mm-hmm. looy perdre sa temps dafa fekk ne da nga ci euh, bëgg dem fu sori macha allah euh, yéen ñi nga xamante ne nii tamit euh, yéen a nekk ci dëkk bi rawatina ñi nga xamante ne nii ñooy autorités yi nga xamante ne nii ñoo fi toogal nguur gi macha allah waa Mbacke bëri na ay jafe yoo nga xamante ne nii ñu ngi koy jooytu fu ci mel ne li nga xamante ne nii mooy njaayeen gële poste de santé yi nga xamante ne nii maire bii di Abdou Mbacke Ndaw defoon na fi ay poste de santé yu ci mel ne Daaru Salaam ak benn ca Santhie benn ca Njaayeen ba ca Njaayeen nag moom am na ay jafe-jafe yu bëri yoo xamante ne ni am na fa ndax euh, porte ya ak li nga xamante ne nii mooy yenn bagage yi nga xam ne matériels yi nga xamante ne ñoom lañ fa defoon euh, ndax faj ma tàmbalee gutoon matériel yooyu noonu jamono jii nii sàcc sa ñu ngi fay dugg di ko sàcc ba dara amatu fa li nga xamante ne nii mooy poste de santé ba nga xamante ne nii moo nekk foofu ca Njaayeen rawatina nag poto lampe yi nga xamante ne nii ñoo fa nekk nag moom amul benn li nga xamante ne nii mooy ay piil pile ya fa nekk sax ay doomi dëkk ba ñoom ñooy def seen dem jënd seeni làmp benn bët seen làmp ñaari bët ñëw monte ko fa kon ñu ngi waat bu baax a baax ak ñi nga xamante ne nii ñooy autorité dikk bi ngir ñu mën a taxaw waat Mbàkke bu baax a baax rawatina nag fa ma dëkk muy sànc ya ndax yoon ba nga xamante ne nii moo jóge Mbàkke dugg ci sànc ya moom dara baaxu ci am bu bu tawee ba seet moom yow foo jaar doo ko am oto bu la indi sax léeg-léeg tawee suba gi man mii sax may def si émission damay tardé heure parce que du ma am fuma jaar ba ñëw kon loolu war nañ cee bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax tali bi war nañ koo defar sareet yi nga xamante ne nii ñoo jëm ba bëri ñoom it tamit nit ñaa ngay ñaxtu bu baax a baax a baax ndax 100 francs taw deful dara ngeen yokk ko 200 ci diggante boo xamante ne nii lu tuuti la loolu it war ngeen bàyyiwaat xel bu baax a baax loolu amul solo kon wàññi leen paas waaye te

Айдем. Aïcha 88 la 628 19 05 88 628 81 08 Aïcha gi de kii moom a ci yàq euh, Oustaz Diagne fay maa ngi koy nuyu bu baax a baax ci moom <laughs> ci moom laa ko tàmmee maa ngi koy bëgg bu baax a baax di nuyu wejji si la madame fay di ko bëgg bu baax a baax nekk foofa ca Poulaye euh, Sexaw ga ñu ngi koy kontaane bu baax a baax di bëgg waa ñaari puna gépp bàyyi wuñu kenn wejji si la maa ngi lay nuyu bu baax di la kontaane madame fay di la bégg lu bëree bëri di nuyu njaboot gi yëpp ak waa Poulaye waa euh, Sexaw ga teenu ma maam Cheikh Dar Rahman Lamp Mbay rabu gët sa rabal yi nekk foofu yëpp bàyyiwun kenn euh, ñu ngi leen di kontaane lu bëree bëree bëri ah 88 la 628 19 05 88 628 81 08 bu baaxee ñu dem jëm bi dafa low xaji dëkke may ma tuut ma ñëw dindi man a man a dama xew ku mën bu la neexee beew jàpp booy di leen busi def leen nga ba di leen futti xaaji waaye kokkuti maa fi ne sawi ta tëri fay ma fis danga ci tuuti ndax dara jëf yu ma ciy teg indi lañuy raat bi man dama mën ñi may def xam ko fis du mag ñi man dama pare bi bu nekk ak na tëroo demee moytu ma fis samay koo xajal ci nee lu cool yi bëri bëri tëroo dama ki ko gàddu mais ragalu ma loolu maa xew sañ na ma dama am talent bëri jaf soxal ci ko bit bi laa caadal amul ragal jëm rek ba ba may dewi a ñàkk fii si suuf day bëri ndax ñi ma fay dafa bëri laa caadal amul ragal jëm rek ba ba may dewi mënul ñàkk fii ndax ñi ma fay dafa bëri ah niveau bee kawe dama fëse fuñ may xaari bro ndax dama wane tey bit bi def ko ni mal bro ku ma yóotu wéroo seen papatéroo moo seen héros seen ci biir ghetto kon mënuñ niroo bro xamoo ko demul damay dem ndax mënuñ dañuy jéem kon gisuma ku ma yéem a maa fi teg tànk donc ñëppi tàgg faa ma fësal li ma doon fokki dëgg ma noonu ba tabal sama yoon doyul dañuy dooli rax ci mami dooli mënu maa niroog ñi ma fële ñëpp jàmmi man la papaay booy donc diri si gambi may ko ko a laa ca dara amul ragal jëf rek ba ba may ndax ñi ma fay dafa bëri laa ca dara amul ragal jëf rek ba ba may dee mënul ñàkk fii si ndax ñi ma fay dafa dara amul ragal jab rek baba may dewi mënul ñàkk fii si suuf day bëri ndax ñi ma fay dafa bëri ah job rek ah di ko jox saa 18 xiif maay wel bomb ci gem bi darape waa jël MC rob bi mën a man a fis dama mën rob bëri jàpp taba na defis dama gaaw dab benn sab ni fa béy dis ndawi ma ko koy gis sa papa la fis ma fokk yéen ñëpp dama ñëw rek toog imposé sama bopp mën a a may boss mën a dem may koos tat lay di la fokk comme dab ay góor di génn mën a paka seen tat ma biru mën a lay fat ay jàgg lañ boole mën a ñëpp lay fat ay pépé kale dellu refan soxal kale wàññi say fan kemtaan gi ma yor tax fis may daan mën a ñaari tànk sax doot daan gem bi su ma ñëwee day bég ni ko jomal naa fi ay bëgg ak bañ gi nag mënul ñàkk nañ toog di tëj seen kaat yow game bi boo ñëwee boo dee béek ni ko jamal nga fi ay fekk bëgg ak bañ gi nag mënul ñàkk nañ toog di tëj seen kaat game bi su ma ñëwee day béek ni ko jamal naa fi ay fekk bëgg ak bañ gi nag mënul ñàkk nañ toog di tëj seen kaat yow game bi boo ñëwee boo dee béek ni ko jamal nga fi ay fekk bëgg ak bi nag mënul ñàkk nañ toog da daj seen jot bëggal nga bañ di nga si su ko dee ni nga doy yam toog ne fixé sa papa ci dootu dootul négocier bay day ànd ak moromi bayam su bañee ànd ak dëxin folo bi di tey daa ànd ak cafin te benn paa naan cakas ki gin teg deuxième pas am si yëpp si cin ay ma fokka kon nag comme dab lay def xër ray bon ba nga def tat nga si fi ne duñ def gat kon su ma neexee gun ndaaj ay xuran xuran ndaa kell ndax lan dama koy jël ay microphone bi may belli ndax lan dama ko mën jam bi su ma ñëwee dañ bég ñi ko jamal naa fi ay fekk bëgg a bañ bi nag mënul ñàkk nañ taw gi te tëj seen kaat yow gem bi boo ñëwee boo day bég ñi ko jamal ngaa fi ay fekk bëgg a bañ bi nag mënul ñàkk nañ taw gi te tëj seen kaat gem bi su ma ñëwee day bég day bég ñi ko jamal naa fi ay fekk bëgg a bañ bi nag mënul ñàkk nañ taw gi te tëj seen kaat yow gem bi boo ñëwee boo day bég ñi ko jamal ngaa fi ay fekk bëgg nañ toog di daj seen mhm. euh, euh, euh, ñaari son yooyu son dañ ko ensonné xam naa ne ndax mën nga noo dikkal ci son bu njëkk bi nga xamante ne nii moom nga woy ndax ci nan la tudd ak lan moo tax nga woy ko. bu njëkk bi mooy euh, euh, kii bi avant bii nii son bu bi bi daw noonu waaw. mooy bi mu mujjee kii nii. waaw bi ma mujjee wax na hmm. waaw. xam nga booy nekkee si benn liggéey nu ma la ko expliqué sànq ñii dañuy bëgg ñii da bañ quoi. Hmm. mais dama nekk kaa nga xamante ne nii damay def dama ko bëgg quoi parce que xool ma ka nga xamante nii bañ na ma si ma xool comme sound bu mel nii war naa ko mën a def léegi si laa jël sound bi. tuddee ko bëgg ak bañ comme bëgg ak bañ bi mënul ñàkk quoi parce que boo nekkee si yoon faaw ñi di bëgg ñi di bañ léegi si laa jël son bi tuddee ko bëgg ak bañ bi mënul ñàkk xaw see hmm. wone affaire rayonde quoi hmm. parce que boo xoolee si ginnaaw maa ngi naan xuraan xuraan daa teel foofu noonu parce que xam nga boo xoolee. xoolal xoolal daa tax naa fecc la wala wala way la. loolu dafa dama ko dama ko teg ci instrumental bi. mu mm-hmm. jàll ma xam ne lii nii war naa ko si mën a dugal ko wax. Mm-hmm, mm-hmm. xale yi nan ko bëgg nan ko challenge si xoolal xoolal daanteel. <laughs> non même pas ça. <laughs> Ah, dugal si sound bi. mu nekk lu jàll parce que sound bi boo xoolee foofu yëpp mooy fi fi fi instrumental bi daggee ba jugaat foofu. loolu laa ëpp lu ma si dégg quoi parce que partie boobu moom ma gën a neex si sound bi. Euh, parti boobu moo la gën a neex ci sound bi mooy bëgg bëgg ak bañ ndax yow da ngaa bàyyi xel ñi nga xamante ne nii ci li nga nekk euh, dan la cee bañ wala. non xam nga nit ki bu la ne bañ la la ko wax quoi xam nga mosu doo gis ko nga xamante ni bañ na nit ki ñoo ne ko carrément dama la bañ. Mhm. mais yow mi liggéey yow yaa xam ne carrément toll nga benn niveau bi te toll nga fa nga xamante ne nii war nañ laa woon a bañ ak war nañ laa wan a mën a bëgg quoi. parce que koo gis mu toll benn niveau bi am nañu ko ñu sañoon comme foofu mu nekk noonu ñu jóge fa. mu bañ faa waaw pour pour ñoom ñu mën a ñëw nekk foofu. mais xam nga lu lu yàlla dogal rek parce que ku nekk ak fa nga war a mën a nekk ngay nekk ko war a mën a nekk feneen fa nga xamante ne nii yàlla tudd na ko. Mhm. moo tax man damaa gëm li may def te xam ne bis bu yàlla tuddee ma àgg fa mu war a egg danaa fa egg incha allah. Mhm. Euh, bu bu yàlla tuddee nga àgg fa ni nga fa war a àgg. Mhm. Euh, loolu am na solo ndax da am foofu ci Jurbel euh, li gars wooye wooyee fans club. waaye am naa ko fa mooy comme time ci interview boobu ma la doon ma la mhm. am naa ko parce que ñoom ñoo may jàppale si lépp ñoo may jàppale si samay programme ak lépp la nga xamante ni maa ngi siy yëngu ñoo siy jàppale ko donte ñenn ñi sax bu ma amee programme dañuy quitté fañ nekk ñi ñi ñu ngi Dakar. kooku koojoon Baye Cheikh ak beneen comédien bi comédien bi may àndal mhm. muy Cheikh Mbel maa ngi koy ziar aussi moom tamit ak ñi des moom ñu ngi dëkk Jurbel foofu si Kasim Bajaar ay Baye Fall mhm. ay Layzo ak ñëpp mënu ma leen ñëpp quoi parce que lim jum mhm. ziar na temps bi yëpp euh, euh, macha allah euh, loolu am na solo ay ca 88 628 19 05 vingt 628 81 08 88 628 19 05 88 628 81 08 am nañ fi ab programme de l'Avent euh, fii ci Mbacke Bawol xam naa ne euh, alxames bii di ñëw la maanaam sodi lay tombeel xam naa ne nag euh, xaw ma ba xam mën na ci invité di nga ci ñëwam déet ndax sa samdi ak ak alxames moom dafa jegante ndax Mour Diop Thiat mooy PDC Bawol Média FM moom la ñuy sargal foofu ci théâtre verdure bu Mbacke Bawol ay loolu moom mun du ma si mën a décider quoi parce que sama ménagère parce que boo jëlee sa ménagère avant ngay d'accord si dara da nga koo war a mhm. laaj audience am ba pare mhm. léegi lépp si am dinaa déggante sama ménagère moo wax après ñoo ngi sa contrat dinañ déggante mhm. am na solo kon na ko ñëpp waajal te bàyyi ko xel euh, foofu ci théâtre verdure bu mbaake muy euh, sodi la 20 euh, incha allahu rabbi ku lu koo xam ne nii dangay ngay bëggee Bawol Média FM wala ngay bëggee ñi nga xamante ne nii ñooy personnel bu Bawol Média moo xam animateur la wala animatrice yi ba ci oustaz yeeg technicien yeeg technicien yi wala sax ki nga xamante ne nii moom la ñuy sargal muy Modou Diop Thiat kon ñëpp sangu ba set sañse lu rafet ñëw ca bis ba taaralal ñu bis ba ndax bis ba nag ku fa ñëw moom di nga fa fekk lépp ndax dina am lépp waaw ndax Ibrahima Khalil Diop moom moo yor wàllam ginaar yi lépp lu fay ginaar rek Ibrahima Khalil Diop moom moo koy joxe incha allahu rabbi waaye dina fa indi 10 télé ak diis rajo moom Ibrahima Khalil joob loolu moo ko sasoo kon na ko ñëpp bàyyi xel bu baax a baax a baax di bége bu baax a baax Omar Seck diwaan Silla cosmétique di ko kontaane lu bëree bëri di béggee waa boofeel baas ñoom it tamit di leen euh, béggee lu bëree bëri di leen kontaane euh, kon sodi euh, la 20 foofu ci théâtre Verdure bu Mbàkke ku ko xam ne nii rek yaa ngi ni bàyyi xel tey bàyyi xel rajo bi wala ngay béggee rajo bi wala ngay béggee ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ci rajo bi rawatina sax kilifa gi nga xamante ne nii moom lañ fay sargal muy Modou Diop Thiat ñu ngi lay woo foofu ca bis ba sodi à partir de 19h nag ñëpp ñëw na fees dell kon képp koo xamante ne ni rek yaa ngi nii bàyyi xel rek ñu ngi lay bëgge lu bëree bëree bëri di la ñaanal jàmm ak tawfeex xam naa ne nag waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci jeex ñu ngi ndax ñu ngi ci midi 35 minutes kon li ñu desee bëreetut da nga ñuy jox euh, saawoon bi nga xamante ne ni rek euh, moo ci des su ko defee ñu daal di ko accéléré euh, door a ñëw ci li nga xamante ne ni mooy sponsor bi Baye Pape waaye door tàggatoo. te waat indi bomb ci game bi darape waat jël MC rob bi mën a mën a fis dama mën rob bëri jàpp taba na defis dama gaaw daf del sab ni fa bér dis ndaw soro ma ko koy gis sa papa la fis ma fokk yéen ñëpp dama ñëw rek toog imposé sama bopp mën a mën a may boss mën a dee may koos tat lay def di la fokk comme dab ay ayca masàlla 88 la 628 19 05 88 628 81 08 88 628 19 05 88 628 81 08 waaye mën a nekk di nu bàyyi xel rek ñu ngi lay bëgge rabëgati si rabal yi bàyyiwul kenn ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax di leen bëgge di leen ñaanal uh, jàmm ak uh, tawféex ay ca yéen ñëpp laa am envie fils dama ko jox dama xare envie booy tëroo fi nekk ku ko ñeme kay fii may teg li ngay teg teg ngay get ngeen toll ci fils te tëroo fi nekk booy woo ci pet ay tàppet bu ma leen bet tëroo du dama ko jox dama xare li ma doon booy yoxos yoxos day dem ku ko mën a tey cokos cokos jël tey ku ci bëgg a dee dugal ci man du la jik mooy sama fuloo gën a soxos jiit yema maa def foo ko fiis gëmuñu say wax demoo tàyyi woo woo faaw nga wuti solution yi cubbaloo ma fiis ma ne léegi nga appaloo damal ban yaa ko tey de footballoo you know maa ngay sabal fiis booy mam saaf ngay dëggal fiis man may kaaf comme dab léegi ma lakk say caaf ñëw tey indaale vaccin gasal bàmmeel taxal ma jaar ko fa ma job ko ko job ma ne eh, pëndal foog góor di génn sóoru ma fiis dama job dama xale ma lay du mag ni di safaat si tuuti ñeex ay waay dama job dama xare li ma doon ñafee rek ba job li ma moom toppal fiis dama ne sama yoon li ma yénoo diis wax ko fiis samay noon mais di daal diis fiis jël tris rek lay gis mu ne resun fiis yàllaa ma taal may taale dugg si fiis da nga bëgg ku la jaale rek da nga bëgg mën a xaar ak ñu laale ku doon xalaat fit mënoo fi dugg ndax seen baay bu nu ma da sànni ma ñaan te dama fi nekk te noonu du bàyyi yàlla ma tàcc ma fecc yéen ma fecc yee tout temps dama ci nekk joobay yegg ci fee wooye ma wooye ma Zero is my name. Daguna, Daguna. Send this man my get them. Why Daguna, Daguna. man maa ngi dem yeah man maa ngi dem. am na solo 88 la 628 19 05 88 628 81 08 son bi ci son yu mujj yi la bokk wala ci son yu njëkk yi. non bii si projet bi la bokk bii tamit aussi génnagul. projet bi boobu ñu ngi tudd confirmé quoi. Mhm. Euh, kon kon projet bi daal maanaam euh, su ma la déggee projet bi xanaa EP EP la war a doon euh, comme ñaata sàmm la war a nekk. maa ngi maa ngi ci ma mën naa nekk ba huit ba ba mën naa nekk foofu maa ngi maa ngi job di teg amaguma soit comme def ko xaw ma ñaata ñaata sàmm la war a mën a nekk mais lu mu bind comme nga xam ne nice na war naa ko mën a dugal studio. Mhm. dinaa ko fa dugal quoi. mais maa ngi si projet aussi te incha allah xam na bu génnee dina nekk lu naaj parce que yàgg naa si job mm-hmm. nekkul tey laa si job quoi parce que yàgg naa si nekk parce que man nekkuma di job ba nga xamante ni dama koy profité parce que dama bëgg la nga xamante su génnee nice ñëpp di ma déglu waa mm-hmm. mm-hmm. euh, mais projet bi day am ay featuring yoo xamante ne dañ ci ànd ak say nawle ay artistes euh, wala yow rek lay doon mën naa ko def man kase mais aussi mën naa kaa def featuring parce que am na benn gaan bu mu bëgg a defal benn featuring ci ci projet bi incha allah. Mhm. bëgg naa koy. Mhm. Euh, bëgg nga bëgg nga ko lool mais euh, ay audio lay doon wala après da nga ci am na ci sàmm yoo xamante ne ni da koy tourner ay vidéo oui am na si yaa nga xamante ni vidéo lay doon incha allah bu génnee. am na mhm. yaa nga xamante ni vidéo lay doon waa am na yaa nga xamante ni aussi day nekk audio noonu. day nekk audio noonu mais projet bi ndax euh, li nga xamante ne nii mooy euh, dépasse bi ci xaalis euh, ndax mënees na koo xam wala wala loolu noonu dañ la ko yoral wala yow yaa koy lijjanti sa bopp. oui son bu ma joobee son damay dem dugal mais mu calculer mu ko waa xamante ni dafa defagum naa ko si def naa ko si si saa parce que su ma dugalee tey damay toog presque lu yàgg soo ko mën a dugal studio kon mënuma mën a noter comme. li ma si def lépp waaw. mënoo mm-hmm. natt li nga ci def yëpp da ngay da ngay liggéey rek daal mm-hmm. euh, loolu loolu am na solo macha allah euh, xam naa ne waxtu wi daal li ci desati fi mu nekk nii bëriwut te dafa mel ne saamu yi yëpp macha allah kii na mat na euh, am na solo kon su fekkoon ne am na message bi nga xamante ne nii da nga koy lancé lan lay doon waaye tamit nga mbo nuyu tamit sa sa sa mbokk yi nga jóge muy waa Bawal rawatina waa Jurbel Eh, di di béggewaat Diourbel ga ma jógee aussi Kaabu Fulo maa ngi koy béggee sama xarit da aussi ñoo bokk place bi ñuy liggéey Kaabu Fulo maa ngi koy béggee di wax comme li ma waxoon si commencement bi rek Diourbel amul dara su ma sañoon gars yi dañuy ñëw jàpp si mu mel ni comme yeneen régions yi quoi parce que bu fekkente ne ku ne daa jóg daaw. mais Jurbel amul dara mais kon kon Bawol moom xanaa moom fenn amul ci dara waa Mbàkke naan Mbàkke amul dara waa Jurbel ñoom it tamit su ñëwee ne jurbeel amul dara léegi kon moom bawal moom xanaa autorité yi yi fi nekk xanaa ñoom liggéeyul dara. te te te te Bawol bëri na ay ministre bëri na ay DG maire yi macha allah. oui dama la dama la wax rek. comme gars yi chaque weekend yi ñëw fii. chaque weekend lan fii ñëw weekend weesoo pare nañ fi oh, pare nañ fi oui. maanaam weekend lan fi ñëw bu weekend weesee pare nañ maanaam comme dañuy dem liggéey fen hmm. sonn fa ñëw ne fii maanaam mooy dallukaay bi quoi. ah ñoom dañuy dallu si fii daal mais duñ fi ñëw ngir euh, defar dëkk bi. Hmm, hmm, boo boo boo dégloo gars yi sax ñu bëri dañ naan Jurbel dem su fa demee damay dem dallu su ma su fa pare dem àggale sama liggéey waa parce que ñu bëri loolu lañ jàppee même bu dul Jurbel sax. ñeneen dëkk ba nga xamante ni amul dara comme gars yi loolu lañ koy jàppe ko waa mhm. maanaam dañ dañ dut boolee comme ci région yi mhm, mhm. comme dañ naan fii amul dara comme boo fa demee di war a mën a dallu ndax dara doo sonal mais boo demee feneen comme yaa fay nekk yaa fay nekk surga ba yaa fay liggéey yaa fay def lépp mais boo ñëwee fii li ngay defee doo ko nangu fii hmm, defee doo ko euh, nangu fee euh, macha allah loolu euh, am na solo Fall importance maa ngi lay nuyu baax a baax di la bëggee El Hadj ki nga xamante ne nii mooy si Cissé Ndoye waaye Baye saal Thiaw Papa Ndiaye yéen ñëpp maa ngi leen di bëggee bu baax a baax waa groupe Seneset bi bàyyiwuma kenn képp koo xamante ne nii rek yaa ngi ci biir groupe bi rek di nu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu baax a baax yéen ngi ci Baol Média FM. 88 point 5 ci émission bu mag bi muy Yoor Yooru Ndaanaan yi di daral ay artistes waaye tamit ak lu ko xamante ne nii rek yaa ngi ci dëkk bi tey di yëngu ci li nga xamante ne nii mooy doxal dëkk bi dañ la ciy invité 11h euh, ba 13 lay doon xam naa ne waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci jeex kon képp koo xamante ne nii rek yaa ngi ñu doon bàyyi xel rawatina yéen ñi nga xamante ne nii nag yéen a jaar ci serveur bi daal di voté en direct ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax euh, di leen kontaane di leen euh, ñaanal jàmm ak tawféex waaye di ko sàkku ci yéen bu baax a baax a baax sunu sponsor bi nga xamante ne nii tamit euh, moom lan àndal ci li nga xamante ne nii mooy jataay bi euh, duñu ko fàtte benn yoon di ko tudd muy bàyyi Papa Ñing dëkk foofa ca Touba sanc Daaru Salaam are maam Seex muy Baay Paap moom soxna May Galas moom Serigne Fallou Mbacke euh, di yëngu ci lépp loo xamante ne ni ci day jëm ci wàllam ñaan moo xam yow mi nga xamante ne nii da nga cat daf la sonal wala rab wala saytaane yow mi nga xamante ne nii tamit da nga am yaram yu metti wala tànk yu metti Baay Paap moo ci gën gaaw gën ci ay masàllaa euh, mu toog ca mbaaram mooma nag di xaar képp koo xamante ne nii ñëw nga fa rek dina la fajal sa ay aajo euh, ba nga xamante nii boo fa ñëwee waaye soo ñibbee di nga sant yàlla bu baax a baax a baax kon dem leen foofu ca Touba Darou Salaam are maam Cheikh fekk fa baay Pape moom soxna May Galas moom Serigne mu fajal leen seeni aajo ba mu taw feexe mu nga foofu ca sanc Darou Salaam ya foo waaye mën a nekk daal euh, foo bàyyee ko bu fekkee da ngaa jóge Mbàkke boo demee ba ca euh, Elton ba ràccal sareetu sanc ya na la wàcce are maam fa wàccee foo laajte baay Pape moom soxna May Galas ñu won la ko yow mi jóge Darou Rahmani tamit euh, wàccal ca are maam Cheikh ba kër ga moo jàkkaarloo guy ga macha allah menn mbedd la en direct moo ko euh, arrêt maam Cheikh kon Baye Pape moom soxna May Galas ñu ngi koy bëgg baax di ko siyaare euh, dinañ leen jox euh, numéro téléphone bi su ko defee ngeen man ko cee woo daal di euh, jokkoo ak moom mu daal di leen fajal li nga xamante ne nii mooy aajo ya nga xamante ne nii moo leen fa indi mooy 76 533 92 56 76 533 92 56 sama sponsor bi ma àndal ci émission bi muy Baye Pape doon. ab fajkatu cosaan moom lan nga koy wax xam naa sax bëgg naa nag nga dem ci moom mu defal la ay ñaan nag yéen artistes yi moom da ngeen a soxlay ñaan ndax fu ne ngeen di dem di taxaw ci mbooloo ñu leen di xool way ku nekk kuy liggéey ku ne bëgg nga ay ñaan mhm. nga avancé waa mhm. di ñaan kooku fi mu bëgg a egg yëpp yal na ko fa yàlla yeggale mhm. te lépp la nga xamante ni ñu ngi koy séntu si muy liggéey yal na ko yàlla defal ko waa di wax gars yi ñu dem foofa képp ka nga xamante ni comme ni ko Modou waxee gis nga ko sa bopp waa Mhm. nga dem fa faju ji fa parce que ku mën ni mi def la mhm. aussi te saa yoo fa demee sa aajo dina faju moom daal ku bëgg bayre rab seytaane cat nangam sangam yaram yi metti tànk yi metti moo ci gën a aay xam naa ne bëgg naa fa sax yóbbu lës bawal ndax moom yaramam mi day metti <laughs> waaw dañuy baax nag. <laughs> Ah. <laughs> am na solo kon Baye Pape ah, xam naa ne nga nga nga xaar rek gars yi moom incha allahu rabbi moom ah, ñi ngi ñëw ndeysaan Euh, foofu ci euh, mbaaram sin fàlloo moom ku fa dugg rek sa aajo faju waaye tamit euh, waa héliport bu Mbàkke ñoom it tamit ñi ngi jooytu li nga xamante ne ni mooy insécurité ba nga xamante ne ni moo fa am wax dëgg yàlla am nañ ay jafe-jafe nit ña dañ leen di kar ah agresseurs yi dañ leen di kar foofu ci héliport bu Mbàkke wax dëgg si yàlla soo fa jaaree à partir de 20 heures soo fa jaaree ak koo mën a doon soo góorgóorlu dëgg gaay dinañ la kar ndax foofu amul di làmp amul dara lëndëm na te wax dëgg si yàlla la fa nekk daal doy na waar torop loolu ñu ngi koy jooytuwaat bu baax a baax kon euh, waa Mbàkke nañ ci bàyyi xel bu baax a baax sécurité bi daal waax dëgg si yàlla war naa doy euh, waaye tamit rawatina fa nga xamante ne nii da mooy sànc daaru salaam yi ñoom it tamit ba mbëbërin kenn demul ñu des foofu moom insécurité moom macha allah la fa la fa nekk daal doy na waar kenn kenn kenn kenn kenn mënu koo wax kenn mënatut a génn kenn mënatut a yar ay xar ay ginaar xëti waxi nopp kenn mënatu ta dara lépp loo xam ne nii yar nga ko fa gaa yi ñëw ne ko duŋaañ yoon wa baaxut marché ba baaxut hôpital ba waxi noppi ah, mbedd yaag ruq ya fa nekk fépp la ndam làmp ya fay nan poto làmp ya daanu nan sanc ya daal macha allah la fa nekk daal yàlla na si yàlla def jàmm kon daal suñu autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi te war a liggéey dëkk bi nan xoolaat dëkk bi ñin teg ci terrain bi wax dëgg si yàlla war na noo seeni oto dugg ci dëkk bi xool dëkk bi xool jafe-jafe dëkk bi ñu daal di defar dëkk bi loolu nag doomu dëkk bi moo toog nii di ko wax pour dégtal leen ko ngeen bay ci seen waar ndax dëkk bi bu baaxee ñun ñëpp la baaxal baaxaluma baaxalu sama morom kon ñun ñëpp la baaxal waaye tamit bu bonee ñun ñëpp la bonal kon cant ak ngërëm ñeel na leen dafa mel ne deux minutes moo ñu dese ñu fàttaliwaat leen rek li nga xamante ne ni mooy sunu programme bi muy sargal Modou Diop foofu ci théâtre Verdure bu Mbàkke muy sodi bi la 20 incha allahu rabbi kon ñu ngi tee woo képp koo xam ne ni dangay ngay bëggee Baol Média wala ngay bëggee li nga xamante ne ni mooy mut Diop Thiat wala personnel bu Baol Média kon ñu ngi fay woo ñëpp jër ngeen jëf cant ak ngërëm ñaan na leen ba subaak jàmm jaajëf jërëjëf si sa jama siise fàllu lës Baol jërëjëf